السلام عليكم استاذ مرتم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج بابكر دلونا له نوي بي اك زياره ني نغي غرم استاذ تي تيوات غي تي اف ماتان تي يوبال بي بو تاي بي واو حاج بكر يوبال بي دي تي جي دا فاي نيو ريك تي نيغا خامني بور دالينا جيتال امنا نيغا خامنتيني بي بورو لياس جيتل نالين ني اي بور سين بورو ليجيو كاي جيتل نالين با نييب دانيو جاخاسو ات بور حاج بابكر مسن نا تي جوخي صاح بن تي فايوك فاي لوي داف با فاي بور مي بي بو تي ام سولو لا حاج بابكر بي دنجكاي داف تي نجل نجل موي انر دو تان افون ني صلاتو لولو موي نجل اك لو تي توب لغي نك لي غاي داف لان لا موي داغي واخ لا اله الا الله والله اكبر كبيرا nga wax wa subhanallahi kasira nga teg ca allahumma inni asaluka min fadlika wa rahmatika soo seetee ni lii bokkoon na ci lii comme li ma waxoon démb ci ki xëy ñàkk dépense allahumma inni asaluka min fadlika wa rahmatika li koy continuer mooy dangay wax fa innahu ma bi yadika maa bi yadika laa yamlikuhuma ahadun siwaaka laa yamlikuhuma ahadun siwaaka lii ngay wax ñaar fukki yoon ak juróom ci heure boobu ma la wax nga xam ne heure boobu heure nangu ñaan la nga di ko def léegi yàlla yombalal la loo faye sa bor yi ba kenn dootu la taxaw wax ak Babacar yeneent bi nag daf ñu wax ne xaj Babacar nañu moytandiku bor parce que bor dalay jaxase ci bëccëg bi te bu guddee dootoo mën nelaw hmm. yàlla na nu yàlla maye lu ñu faye suñu bor yëpp hmm. balaa ñu ko wujj xaj Babacar jërëjëf Oustaz Mor